amee juróom benn kii. juróom yàlla maa ngi lay ñaan nga gërëm yërëm sama ndey ak sama baay. waaw ay na rahmati bii. amiin waaw bu cee de maa ngi lay ñaan nga jéggal Ousmane Tanor waaye maa ngi lay ñaan nga jégal di ko def Cheikhul Khadim Amadou Bamba bépp doomam ak bépp seexam ak bépp taalibeem maa ngi lay ñaan nga jégal Seydina Cheikh Ahmad Tijani ak bépp tarixa boo xam ne nii benn kër bi ne boo xam ne nii ak ci Seydina Cheikh gis naa fi njaboot Mawlana Cheikh Islam Alhaji Ibrahima Niass maa ngi fi woo bépp jullit bu dëkk Kaffrine mënu maay lim ñëpp waaye maa ngi nay woo maa ngi ñaan yàlla mu jégal Ousmane Tanor Dieng Cheikh Lo maa ngi koy ñaan mu jégal Assane Ndaw doomi Saliou Saliou Ndao ak Seydou Thiam yow yàlla maa ngi lay ñaan nga jëm ci jéggal sama ndey sama baay seen ndey seen i baay ak doomi tax ca bari sax yëpp waaye surtout maa ngi lay dagaan nga jéggal Alxaaji Moussa Ndao yërëm ko tabar ko àjjana magi lislaam nga doole leen kattana leen barke seen jaamu yàlla doomatin laa ilaaha illallah wahdahu laa sharika lah